satara suturaal na la yàlla awratu awraam ku téye làmmañam yàlla suturaal ay ayibam waaye ku téyewul di wax rek ayibam mi daal di feeñ rek laa wax de nit danga ko gis mu peese ci yow cinquante kilo ci daraja wax daal di wàcc ba fukki kilo rek laa wax de maanaam fa nga ko fa wonde ga nekku fa loolu danay am waaye nag safaan ba dana am de nga gis nit peese ko cinquante kilos ci daraja mu wax nga gis nit kii fa nga ko foogoon paase na ko foofu arab nee na takkalam tonra waxal xam la ah doomu aadama nag ñaareel buñ ko xamee rek gis ci moom lu suufi de waral noppi baax lu mooy loo xam gis nga daal koo gis wax lu xam su paree mu noppi yàlla dana ko waaye daal koo xam ne nii day wax rek lu mu xam lu mu xamut si gàcce rek lay dëkk de loolu mooy wax ja ku téye làmmañam mooy koo xam ni du wax mukk lu mooy lu mu xam lu ko leer daal mu wax lu ko leerul mu kooku daal na waaye koo xam ne nii lu ko leerul lu ko leerul lu ne moo wax rek kooku nar naa am de ay dama juumoon nii laa ko foogoon dana ci dëkk maa ngi jégalu su ma ko xamee woon nii du ko waxee nii danañ ci dëkk rek laa wax de kon dee leen téye bu leen wax lu mooy lu ngeen xam lu leen leer beneen xadis wax na ne doy na ni rek aw nar lu dégg nettali ko koo xam ne lu dégg rek dem nettali ko loolu doy na ko fen maanaam loolu fen dëgg de ndax bu dee loo dégg nettali ko da nettali dëgg da nettali fen ndax la ngay dégg dafa am loo xam ne dëgg la am loo xam ne fen la de yow mi nettali fen nag fen nga rek la kon bul def loo dégg nettali ko wa man malaka ku moom xada boo meram wax kaawu fegal na ko laa welan daa boo mbugalam ku téye meram yàlla téel ko mbugalam sa mer boo ko gardee yàlla teel la mbugalam waxoon naa ko dem boo toppee sa mer rek def loo wuru def soo defee loo wuru def nag nattu juddoo ci rek laa wax de moo tax doo aadama bu meree na téye boxam ba bu mu wax lu mu warul wax bu def lu mu warul def waaw waaye su dee soo meree rek mel ni ab dégg bàyyi ma dootoo xamati looy wax dootoo xamati looy def da wax lu ëpp wala nga def lu ëpp rek laa wax de te su boobaa mbugal rek nga cee jëlee maanaam naqar rek ak ak fitna loolu rek moo cee juddoo wa man malaka ko moom ko def woo meram waxaaw fegal na ko laa yàlla daa boo mbugalam wa man yàlla xabira nangu na laa yàlla usro jéggaloom de loolu boo ngantuloo jëm ci yàlla yàlla nangu sa ngant maanaam boo maa ngi jéggalu maa ngi tuub nga génn ci bàkkaar dem ci lu baax xamal ne yàlla la jéggal rek laa wax de kon ku jéggalu rek yàlla jéggal ko bakkaar lu mu bëri bëri nag boo ngantuloo mooy nga tuub génn ci la ñaaw la dem ci lu baax la yàlla jéggal rek laa wax de axrajoo génn na bi ibn abi dunya mu ne wax xaala waan ali yàlla nekk moom asalaatu xool wasalaam ak mucc yonentu nee na kaada xaw na alxalim aji an yakuna mu nekk nabiyan dig yonant ku lewet naa nekk yonant ku lewet mooy kuy muñ waaw ba waaw du gaaw fayu du gaaw wax lu mu warul wax du gaaw a def lu mu warul def mën nga ko def lu ne waaye mu muñ rek de kookoy ku lewet loo warul def soo def ko mu baaxul waaye ku lewet moom ku lewetut ci saa si mu def lu mu wóor def wala mu wax lu mu wóor wax amaa ku lewet balaa nga koo def loolu mu wóor def wala nga wax la lu mu wóor wax ah da nga waxuma du def lu mu wóor def de waaye du yomb du waxi lu mu wóor wax waxuma loolu waaye du yomb ndax dafa mën a muñ kookoy ku lewet kooku nag xaw naa nekk ab yonent maanaam kon lewet ci jikko yonent yi gën a fort la bokk nga xam ne daa nekk mën nga xam ne yonent rek moo ko rek jege nga ak yonantu maanaam wali yu nga kon jege yonantu lu mu doon yu moo tax koo gis mu lewet bàyyi ko xel ko xel ku mën a muñ mën a dékku waaw kooku xaw naa rek yonantu rawanetul alxatib xan anas tereegu ci anas wa qaala waan ali aleykum wasalaatu qul wasalaam ak mucc yonantu nee na amara nii digal na ma rabbi sama borom ana si la ma jokk man xataanii ku ma dog wontiye ma jox man xaramanii ku ma xañ wa fu ma jéggal am man zalamanii ci ku ma tooñ yonent nee na sama borom digal na ma ku dagg sama digganteeg moom man ma jokk sama digganteeg moom nit ku la dagg bàyyi la kontur la yow jokk ko mooy boo ko rombee nuyu ko boo amee jot demal ziyaare ji ko boo ko gëjee dégg woo ko téléphone wala nga yónnee ko ak ndéggat maanaam wax ak moom daal ndax jumtukaay wax yi léegi bëri na whatsapp yaa ngi fekk yëpp te yàlla digal na ma ku ma ma jox la yow nga man maa jox di ma xañ man ma yëkkati sama alal man jox la noonu la ko yàlla digal nee na waaw fu ma jégg am man zalama ni ci ku tooñ yonent nee na yàlla digal na ma nit tooñ ma ba pare ma mën a fay am doole ja waaye ma baal ko loolu la ko yàlla digal jikko yi ne mooy jikko yi ku lewet moo ko man nit dagg la wala rombee du la nuyu te wàññiwul la dara yow ndeysaan nga di ko jokk te yokkul la dara jokkoo ngir benn intérêt waaye da nga jokk ngir yàlla waaw ah, waaye bul ne maa ko ëpp ful la dana xam ne man ak moom la waaw man su ma bàyyee ma bàyyi ko déedéet bul def loolu na la dagg te wàññiwul la dara yow nga jokk ko te yokkul la dara koo xam ne bu la bàyyee du la wàññi dara mën naa am daf lay gën a noppal sax daa am na léeg-léeg yoo xam ne buñ génnee sa dund noflaay rek lay doon ci ndax dugg gi ñu dugg sa dund jëriñu la dara coono rek la su ko defee kooku nag dagg la nga waroon ko def ndokk yàlla yow nga jokk ko yow hmm? loolu ku baax rek ko man yonent ne loolu la ko yàlla digal yonent ne yàlla digal na ko nit fu mu toll dafay xeex pour yow doo xam dara yow foo toll nga di ko dimbale pour mu xam yàlla digal na ma nit tooñ ma ma mën a fayu am doole ja ba pare baal ko fi riwaayatin ci beneen nettali mu ne afdalul fadaa'il yi gën ci ngëneel yi an tasila mooy nga jokk man xataaka ku la dog wa tontiye nga jokk man xaramaka ku la xañ wa tasfaxa nga baalaam man zalamaka ci ki tooñ yonent ne jikko yi gën mooy ni dagg la dagg sa digganteeg moom yow nga jokk ko loolu du ñàkk fayda de loolu mooy am fulla dëgg waaw mu ne nit tañ la yow nga jox ko ci jikko yi gën la bokk waaye nit tooñ la nga baal ko waaw solo na ko ahmad ahmad wa tabaraani wa qaala waan ali yàlla nekk si moom asalaatu wa salaamu mucc yonuntu nee na innama al ilmu naka xam-xam bi taallumi mu ngi ci jàng kon nit ñi juddu wuñ rek am xam-xam déedéet ku juddu xamoo dara wallaahu axrajakum min butuni ummahatikum laa taalamuna cheyan yàlla leen génne seen biir yaay xamu leen dara kon ku xam ku ne dafa jàng rek mbir yi jàng rek la nag moo tax ne innama al ilmu naka xam-xam bi taallumi mu ngi ci jàng boo bëggee xam-xam-xam dama jàng rek njëri ko yonantoo kon mbir mi ci na la rek ci jàng jël laxdari jàng topp téere fiq yi topp téere naxu yi topp téere luxa yi topp téere xadis yi topp téere sarf yi topp téere balaaxa yi topp téere arud topp téere mantiq topp alquran ak eh, topp xadis ak topp usulul fiq topp fànn rek di jàng ka jàng rek téere bu ne nga jàng ba yàggee ngay war mi xam-xam kenn mënu ci dara hmm? ak foo mën dëkkal ci àll bu xonq ba nu fi gars di waxee du ma tudd benn dëkk ndax boo tuddee dëkk ñoom naa xeeb dëkk waaye dëkkal ci àll bu xonq ba boo jàngee rek di borom xonq boo jëfee rek li mu di wëlli yàlla kenn mënu ci dara moo tax nit la lay yëkkati ak la lay wàcc ci yaw la nekk waaw na ma yàlla mu naka xam-xam mu ngi ci lan bi taalum mu ngi ci jàng jàng rek la nekk waaye boo jàngul nooy xamee jàng nag ak jàngantu du benn jàng gi koy def day yittoo ay darsoom di ko nafat di ko xool fexe koo dégg di laajte lam ca xamut te lam romb mu di ko gersuwaat di ko nafataat jàng daal jax loolu la loolu la mag ñu wax dina jàng jax jax mooy xool téere yi rek sëgg ci téere yi rek loolu mooy jàng ku la gën a yàgg ci téere yi mu ëpp xam-xam Hmm? kon xam-xam ci jàng la nekk waaw boo bëggee am xam-xam nag foo nga góorgóorlu jàng foo mu ànd ak góorgóorlu jàng boo àndut góor góorgóorlu du jàng jàngantu la njàng mu àndut ak góorgóorlu mooy loo xam ne yow na nga fexe tari génn ci rek yow daal na la oustaz wax na la baax na nga génn ci rek waaw loolu loolu ànd ak góorgóorlu njàng mu ànd ak góorgóorlu mooy njàng moo xam ne borom dafay góor góorgóorlu di jàng lu man pour dégg ko oustaz ak faam oustaz nekku fa waaw loolu mooy njàng dëgg di jël lim mën waaye koo xam ne na génn si na si génn rek dars bi noonu nu gën a gàttee rek noonu la gën a baaxee na si génn rek loolu du jàng kooku mën naa wañaam xam ñaareel bi muy xiir mooy lum jàng gut gune yitteem ak ci pour mu jàng ko maanaam xiir ci xam-xam bëggul bàyyi benn fan bëggul bàyyi naxu bëggul bàyyi balaaxa bëggul bàyyi dara bëggul bàyyi tajwid bëggul bàyyi dara mboolem lu mu dégg muy xam-xam rek yitteem yegg na ci maanaam bëgg na koo xam mu ngay góorgóorlu pour xami ko it xiir ci xam-xam nga xam ne ni jaral na ko dox ñetti fan yoo xam ne amul oto dafay dox ngir dajeeg ab borom xam-xam ngir laaj ko benn masala mu ko réer benn masala mu ko réer jëlal na ko dox ñetti fan ngir laaj ci ko xam nga ko xiir na ci xam-xam de ku mel nii moo a am xam waaye koo xam ne masala jërewul ko dara boo amul benn masala mu xamul du tiit du def dara te du sonn sax pour jéem koo xami kooku am kooku pour mu xam-xam du yomb de waaye boo bëggee am xam-xam foo nga am yóbbul tuuti foo nga am ku lay jox dara tuuti ndax bu da nga jënd téye xaalis boo jëndee téye ah ay fere daf lay war sa jàng mi xaalis boo ko defee tukki dem dajeeg ay boo koy defee kon foo nga am ndimbal tuuti moom dégg foo nga am ustaas tamit bu xam lim lay jàngal amal yitte xiiral amal xalal ju dul jeex waaye boo amul ustaas bu nooy xamee ki lay jàngal bu dee moom déggu li lay jàngal yow koy dégg <laughs> bu dee moom moo lay jàngal moom lay jàngal xamu ko wala boog tayal na ci sawarul yow koy déggee waaye ku xam-xamit pour nga am ko foo nga am xel muus waaye koo xam ne buñ ne la sàmm nga ne demba ñu la weex na nga ne ñuul na ñee la xonq na nga ne bula bu mu naan xonqam du yem kon xel foo mu bokk ci wanaa leen góorgóorlu xiir am yóbbul am ustaas am xel juróom benneel ba mooy tuulu zamaanin yàgg ca yàgg ca waaye jàng ku ci yàggut mënu nekk borom xam-xam kon juróom benn yi mooy maye xam-xam yonent ne ne xam-xam ci jàng rek la nekk jàng foofu juróom benn yi dajee ci xiir ci li ngay def di góorgóorlu am koppar tuuti buñ la dimbalee waxuma xaalis bu bëri nag dégg nga am ustaaz am xel am ustaaz bu baax am xel waaye def ci temps ñaam koom-koom lii moo may mu ne wala xel mu xam wala xel mu lewet yonent ne ne bi taxallumi mu ngi ci lewet lewetlu xam nga nit tëbul rek nekk ku lewet waaye dañ lay nga mën a fayu mën a wax nga bës sa xol jéem di jéem lewet di jéem muñ di jéem muñ ba mujj nekk jikko ci yow kon lewet dañ koy jéem nit ñëw romb la dëgg la nga ne tekk mënoon ko woo yuuxu de nga dëgg waaye nga ne tekk pour lan pour jàng muñ jàng muñ muñ dañ koy jàng mooy léeg-léeg day am loo mën a tontu nga bañ nga noppi bu yàggee rek mu nekk sa jikko boo lewet lewoon lu bu yàggee lewet nekk sa jikko kon du dangay xëy xëy rek lewet du lewet dañ naan yàlla ma ko bindee déedéet da ngay jéem da di baale da ngay jéem nit di la noonoo yow nga mais li xamoo ne def laa noonu di ko defal lu baax rek te yaa gën a xam ne xew da ngay jéem nit tooñ la sa xol bi tàng lool nga muñ nga bës sa xol ba fayoo dangay jëm nit dog la nga jokk ko mu mel ni da nga ñàkk fayda fekk walaay bu yàggee rek lewet nekk sa jikko kon xam-xam mu ngi ci jàng waaye lewet mu ci lewet lewetlu yonent ne wa man yataxarra wa man yataxarra la dégg nga ku jublu lu baax rek yoon ñu jox ko gis nga mbaax ku ko jublu xam ko ku ko xamul rek da koo jubluwut maanaam bu fekkee yaa ngi dajeeg ñu baax ñi ngir bëgg lu baax yaa ngi jéem a def lu baax jëf yu baax yaa ngi dajeeg moom ngir bëgg lu baax yaa ngi jéem wax lu baax ngir bëgg lu baax yaa ngi jéem a mel ni nitu yàlla yi bu yàggee rek ngay ñëw gis nga wut lu baax xamoo ko lu jafee ngoo ko boo bëggee lu baax rek yàlla jox la yow defal sa bopp bi ne man lii lu baax la bëgg naa faa yegg te jaas ci yoon di jéem booy jéem yàlla yeggal la mooy yow ma ne taxara ku jublu alxeyra lu baax yoon taxu ñu jox ko ko yéen a doon wax kat nee na boo bëggee lu baax ñu jox la ko tey boo tax boo defoon sa bopp bi ne man mi ëllëg maay borom xam-xam bi ëpp xam-xam ci àddina bi jubluwuma ci nag pogoré waaye mu si jublu liggéey lislaam dama cee jublu bokk ci nit yàlla yu gën a baax danaa nekk ki ëpp xam-xam ci àddina bi nekk ki gën a baax ci àddina bi wala yàlla yi gën a mag ci àddina bi danaa ci bokk te xool ñooñu fañ jaaroon nga jaar fa di ñëw boo jéem rek di jàng li nga war a jàng di def li nga war a def am yar bañ amoon am teggin bañ amoon di ñoom kenn mënu ci dara ku jublu baax ñu jox ko boo taxoon ne man mii kat. maa ngi nekk milliardaire bi ëpp alal ci àddina bi waaye nag eh, dama koy joxe ci yoon yàlla dama ci def lu baax di ci xeex lu bon xaw ci yoon wi nangoo liggéey fajar di góorgóorlu di sonn di ñaan yàlla rek di rek di borom xaalis loo bëgg a def ci kaw suuf muy lu baax boo xawee ci yoon wi yàlla jox la ko mooy ma ne taxara ku jublu ku jublu la mooy ko xaw ci yoon waaye lu baax nekk góor nga nekk duraat nga ne bëgg nga ko loolu mbébét maanaam yow defoo dara luy maye lu baax damaa bëgg xam-xam te yow yaa dàq nelaw yaa dàq bee bëri nangoo jàng nangoo sonn noo amee xam-xam damaa bëgg liggéey te yaa gën a tayal nangoo euh, sonn naaj du la jëm doo dagg say nelaw noo amee àll damaa bëgg jàmm te doo def lu baax yaa ngi sàcc yaa ngi fen yaa ngi rambaaj diggante nit ñi noo amee jàmm kon ku jublu lu baax la wax maanaam ku xaw ci yoon wu rek yàlla jox ko lu baax amul benn sikk sàkk lu baax lu nekk boo yaw ci yoon rek xam ko waaye boo wut ci doo ko am de boo ci yoon bëgg ko doon mbébét la mbébét mbébét mayewu dara ba ma lu baax yoo taxu jox ko kon jéem leen lu baax jéem leen moo doomu aadama man dama doomu aadama bi gën a ñàkk fayda ci àddina bi mooy koo xam ne xamul lu mu bëgg xam nit ku nekk war nga am lu nekk sa mbopp bi nga ne man lii laa bëgg def suba ba pare nag yoon woowu jaral la lu ne mu métti du tax nga dëpp mu neex du tax nga dëpp du tax nga tayal tamit mu metti du tax nga dëpp waaye du tax nga wàññi sa loxo ñu ngi daan def rek ngay def mu neex du tax nga toog du taxit nga tayal xaw ci yoon woo yoonu yoonu li nga bëgg mu jaral lu ne rek bu yàggee nga am ci la ci gën a foor waaye ni koo xam ne dara nekku ci bopp loo bëgg man de maa ngi nii rek man kay maa ngi nii lu yàlla dogal rek kooku mu def dara du yomb de parce que du aw ci benn yoon day gas fii maanaam day mel ni kuy wut teen rek gas fii ba mu xóot mu wax ah fii dafa dëgër dama gasaat fee ba mu xóot fii dafa dëgër gasaat fee pax yooyu mu gas boo ko am na ndox bu yàgg amul dogg amul dogg boo bëggee da ngay bëgg dara ba pare ne man lii laa bëgg a def suma dund soo paree li nga bëgg def su dund nga xool yoon wi nga war a jaar pour def ko nga jaar ci yoon woowu bu yàggee rek nga def fi dara xam nga àddina li li ci am solo mooy na nga fi def dara kañ nga koy def ak nan nga koy defee ci yenn condition nga koy defee loolu bu mu la intéresse na na nga fi def dara comme ñëpp rek loolu moo am njëriñ yàlla daf laa bind pour nga def fi dara bindul la pour nga yaacaaral ngir defal rek. bañ lay defal mooy ba nga nekkee xale xanaa boo demee ba nekk mag nag mën a defal li ñu yow tamit nag xanaa nga fay bor bi ñu la lebal te soo awut ci yoon bu baax doo fi mën a def dara kon ku jublu lu baax ñu yokk ko mu ne tawaq ku moytu asharra hay yu waqahu ñu moytuloo ñu musal ko ci bu ma ne tawaq ku moytu asharra hay yu waqahu ñu musal ko ci yonent nee na ku moytu hay yàlla musal la ci gis nga lu bon soo ko moytoo rek mucc moytu ba pare muccoo am doo am de boo moytoo rek mucc lu bon kum dal rek yaa aw ci yoonam waaye boo moytoo lu bon du la laal lii dégg la buy jamee nga jaar ci wetam teg ko dala la jam boo moytoo ñàkk noo koy moytoo ci nangoo liggéey nangoo ñaan yàlla nangoo góor góor yàlla musal la ci ñàkk boo moytoo réer noo koy moytoo ci nangoo jàng nangu see sonn nanga am yar ak teggin yàlla musal la ci réer boo moytoo ak saay-saay ci jéem a jëf lu baax def ndigal yi di bàyyi tere yi yàlla musal la saay-saay boo moytoo safara ci jéem a def ndigal yi bàyyi tere yi di sell sa gëm yàlla di ñaan yàlla aljana yàlla musal la safara kon affaire bi ndeke yomb na kat ndeke ku jub lu baax am ko ku moytu lu bon mucc ca waaye nit du jéem a baax mukk yàlla di ko gàccal jéem nga ba sonn def nga sa effort yëpp yàlla toroxal la loolu du am de moo tax ku sonn rek ñaareel muj ga mujj ga dafay baax yow jéemal sonn ci lu baax rek jéemal moytu lu bon rek yenn euh, métti métti yi mu la jaaxal loolu yàlla la ko teg pour natt la waaye dana la musal ci lu bon dana andil lu yiw ndem yaa ngi ci yoon wa nag laa rawaw soo na xadis boo daaru qutni fil ilal ci ilal wa tabaraani tabaraani andi ko su ko defee yooyu moo doon suñu dars tey bi nuurul islam wastantu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu